Macky Sall mu ngi may dégg am na kër fële États-Unis ci dëkk bu ñuy woowee Houston Macky Sall am na ay compte bancaire États-Unis Macky jabaram ak ay doomam am nañ ay kayit États-Unis Macky Sall xam na est-ce que américains yi dañuy caaxaan wala duñu caaxaan yàgg yàgg yàgg day leer te duñ ko bàyyi munoo jóg jël lu toll ni dix milliards de dollars ci quarante ans xam ngeen quarante ans mooy lan. ku nekk ci ñun fii na jël 40 ans rek yokk ko ci ay atam mu xool est-ce que am na yaakaar dund ba léegi kon nag ñoom Macky Sall ak rakkam Aliou Sall nañu teg ñoom 40 ans ci seen ay at ñu xool est-ce que yàlla dina leen may sax ñu fekkee yàlla leen yàlla may ñu fekkee wante nag nit ki nag <laughs> yow Macky Sall nu mu amee ay doom ñu noonu lañu ñu amee ay doom waaw loolu mooy dëkk. lu tax mag Macky Sall foog ne ne que lii moom dañ ko fal ci mandat wu juróomi at rek mu ne moom lépp lu fi nekk da koy da koy daal di mbumboo ba daal di ci dugal ay doomam xanaa ma nga foog ne Sénégal moom la fi moom la fi am ay dom dama ne alalu mbooloo dañ koy pencoo alalu mbooloo kenn du ko pàccoo alalu mbooloo kenn du ko aakimoo ben, je vais vous donner une petite information et je vais vous dire pourquoi vous devez croire qu'on restera dans la rue. Dans l'année, il y a 365 jours. Un milliard. Un milliard là, 6 000 milliards. Un milliard. S'il vous plaît, un milliard. Je dépense tous les jours un million. 365 jours, oui, 365 millions. Quand il y a un milliard, danaka mën nga million par dépense par jour ñetti at 6 milliards toje dépense dañuy dépense ba dugg di joxe dépense dañuy parce que nag dugg bàmmeel di joxe dépense kooku amul fenn waaw dugg bàmmeel di dugg di dépense amul c'est pas possible 1 milliard je l'ai expliqué à plusieurs reprises je vous dis il y a 365 jours dans l'année ce pays est un pays pauvre. Récemment, vous avez vu le classement qu'on a obtenu. On est un pays extrêmement pauvre et c'est la vérité. Comment on peut s'amuser à laisser trois individus se permettre de s'amuser avec 6 000 milliards Comment peut-on l'accepter Il ne s'agit pas de dire que vendredi, il y a 10 000 personnes à la place de l'obélisque, il y a 50 000 personnes ou il n'y a que 200 personnes. Même s'il n'y avait que deux Sénégalais, man je serai le deuxième sénégalais présent sénégalais bu ma man ma di parce que nu ngeen amé ay nous sommes des ay Nous nu ngeen amé nous am yaakaar amé Nous avons la nous yaakaar bëss am ay sommes li daf Nous, ñun un milliard dans 40 ans le président Macky Sall objectivement aura plus de 90 ans ñu ngi koy ñaanal yalla may ko gu yaram.